laa fi bokk ñoom laa fi bokk yëpp la coordination section Dakar Plateau bi yëpp ci coalition Diomaye Président euh, di jiiteel si nuyoo bi suñu coordonnateur Alpha Mamadou Nabe nga xam ne pour des raisons scolaires moo tax président wul mais ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal donc di la di rafetlu bu baax euh, invitation bi ak ñëw nemmeeku suñu ko doo ngay doomu plateau ñëw fii xam nga def euh, ngay fierté Dakar Plateau je dirais donc nga ñëw def émission si ñun au niveau de section Dakar Plateau ci naka la ñuy waajalee suñ dernier réglage jëm ci bés bi nga xam ne mooy euh, dimanche 24 mars 2024 euh, ci wàllu élection présidentielle. Euh, tout d'abord da may permettre parce que mobilisation bu bu possible c'est toute l'équipe équipe la ñu donc au niveau de la section coalition Diomaye président donc équipe la ñu dañuy bokk di àndandoo di liggéeyandoo kenn ku nekk. Euh, role bi ñu la jox soo ci soo ci nekkee donc ñeneen ñi mën nañ la appuyer donc ci loolu dama ci félicité euh, sama jeune frère bu mbay donc euh, moom mooy moom mooy yore massification président commission massification ak vie du parti ak Fat Bintou Sané ñoom tamit ci commission au niveau commité électoral bi ñoom ñoo ko ci yore mobilisation samedi bi nag donc démonstration de force la woon on peut dire donc samedi dañ décidé woon euh, def caravane sillonné euh, dugg ci riu Dakar Plateau yi ak koñ yi ruq-ruqaat yi parce que gis nañ ne en fait élection yi dañuy def euh, dañuy favoriser VAD bi donc visite à domicile yi dem ci biir kii population distribuer spécimens yi léegi samedi nag dañoo décidé woon nag def benn comme mënu mënuñu ñu yegg fépp parce que 12 jours de campagne la ñu am ñu choisir samedi bi def caravane mobiliser def une mobilis forte mobilisation terminé ko par une meeting au niveau de Kayfindiou donc lool lool moo doon mobilisation samedi bi en fait euh, ñun au niveau de la coordination donc euh, ñun c'est pas du du tey lañ commencé liggéey liggéey bi yàgg na liggéey bu yàgg la parce que à la à la sortie des élections présidentielles de 2019 si la ñu amoon projet mooy moo tax ngay dégg baatu projet projet projet 2000 depuis l'an 2019 ba suñ président Ousmane Sonko. remercier ñu gërëm ñu ci taxawaay bi mu ne ñu deux mille va vers deux mille 2024 2024 bi si lañ ko commencé di liggéey li 2024 dañoo génn foofu rek commencé di organiser wu di organiser wu parce que dañ ne woon une politique autrement donc ci politique autrement boobu lañ fi commencé woon di organiser ay vacances patriotiques gars yi di dem ci tool yi di béy ak yu ni mel donc après nag yaa yaa après nag si la ñu si la ñëwee nu mu tuddati épidémie bi coronavirus ñu sursoir suñu activité ba ñu génnee ci coronavirus bi tamit euh, on a voulu reprendre nos activités mais malheureusement il y a eu les les événements de mars 2021 ñu nekk ci di xeex di xeex di xeex mën naa ne 2021 xeex la woon 2022 tamit xeex la woon dañ duggee ci local yi ak législatif yi yooyu noonu yëpp xeex la woon donc loolu noonu lépp continuité la continuité la ci continuité boobu nag xeex bi nag ñàkk nañ ci lu bëri ñàkk nañ si lu bëri am na si ñoo xam ne euh, au niveau de Dakar Plateau am na si am na ci ay blessés am nañ si ay ay détenus politiques am nañ si lu nekk am na si ñoo xam ne dàq nañ leen seen liggéey am na si ñoo xam ne sëy yoo xam ne tas na donc loolu noonu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp moom moom mooy continuité bi ñu doon wax noonu mooy continuité si euh, projet bi projet bi nga xam ne moom la ñu bëggal Sénégal à partir de mars 2024 incha allah. Euh, waaw comme comme ni nga waxee rek euh, en fait euh, ñun depuis ba ñu depuis premier bi ñu programmé élection yi maanaam ci février bi ba tey tooguñu chaque jour ñu ngi sur le terrain donc boo doo dee boo dee xool Dakar Plateau parti bi fi gën a ñeme terrain ñun la. def nañu quatorze quartiers yi ci Dakar Plateau yëpp amul fenn fu ñu bàyyiwul parce que amuñu fenn sens interdit donc euh, loolu loolu noonu moom moo moo ñu permettre tey ñu kii dernier réglage yi nag lenn la rek en fait euh, élection lañ jëm li ci des nag euh, ci wàllu commission électorale bi lay dox par exemple ñi ñuy siégel xam nga déjà on a déjà fait la formation avec 5 ans yeeg mandataires yeeg yooyu noonu yëpp ba boucler nañu lu Dakar Plateau am 70 bureaux de vote yëpp. faire permettre may nañ tey may ñu ba ñu am soixante dix bureau de vote yëpp am nañ fa ay représentants am nañ fa ay suppléants am nañ mandataire ci centre huit centre yëpp donc liggéey la boo xam ne dañ ci euh, équipe la kenn ku nekk jàpp si su kaw loolu may féliciter suñu président commission euh, nu mu tuddati commission électorale muy euh, madame Aminata Diallo ak ak vice vice président bi muy Maodo Sy Touré ci liggéey bu am solo ñu def noonu fi ñu toll nii nag dernier réglage la suba dañuy dañuy def suñu caravane de collecture boo xam ne dañ ciy ànd suñu président donc après noonu nag foog naa ne campagne jeex na à partir de vendredi à minuit maanaam samedi une heure du matin day fekk campagne yi jeex léegi ci la ñuy jublu euh, ci li nga xam ne mooy processus électoral bi ak xool naka lañ ciy demee xool luñ ciy organiser parce que campagne bi tamit élection yi nag dafa dafa particulier parce que dafa tombeek euh, weeru koor waaw donc buñ comme ni ñu koy waxee rek suñu slogan bu ñu xëddee rek jubalu ci bureau de vote yi voté xam naa ne bureau de vote yi huit heures la le règlement yi wax mais six heures du matin gars yi nañ commencé rang incha allah. merci Khady maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax xam nga politique d'abord la base c'est la famille en tant que jigéen ngay mère de famille nga xool situation politique xool géopolitique xool ndaw Sénégal. fan la ñu toll ak yaakaar bi ndawu Sénégal am te yaakaar yi di dikk di tas rek di tas rek di tas rek soo gisee un leader politique de l'envergure de Ousmane Sonko de l'envergure du candidat Bassirou Diomaye fay mënuloo lu dul adhérer à projet parce que projet bi nag daanaka dafa mel ni projet bi mooy projet bi di tënk famille mooy projet bi nga xamante ni daf ñuy gunge dimbali ñu de telle sorte que li ñëpp bokk ñëpp mën see jot dimbali ñu de telle sorte que waajur yi bañatee amati souci bañatee amati njàqare fi nan la ñuy gungee seeni doom ndax Sénégal li fi nekk bari na li fi nekk li nga xamante ne mën nañoo jëmmal mën ñoo gunge mën nañoo teral mi ngi fi li ko war a mën a jëmmal rek mooy ngeen ànd ak projet boo xamante ni que la ñu moom ñu ko jéggaani fii lay des muy jëriñ askan wi di ñu jëriñ di jëriñ waajur yi di jëriñ suñuy njaboot jëriñ Sénégal yëpp. mais est-ce que Sénégal am na école bu ñuy former un président de la République amul y a pas une école forme un président de la République expérience bi xam nga fan nga koy ak ak acquérir ci sa jom sa dëggu sa jubal ak sa loxo yu set ba Bassirou Diomaye amul dara lu ko nit mën a wax ni que ameel nga ko askan bi du fukki dërëm lu mu lekkal askan bi comme disait Ousmane Sonko dans son slogan ñun ci vertu yooyu lañ ko nawee parce que nag loxo yu set moo mën a yor réew. beneen Sénégal la ñu woo te ci beneen Sénégal lañ koy wuyu. incha allahu rabbi incha allahu rabbi dimanche di nga dégg victoire bi nga dégg vive la coalition Diomaye président xam nga li tax parce que ñi ñu jàkkaaroo dafa mel ni ñoom ñooy opposants yi fi mu toll nii daa mel ni ñun suñu coalition ñun ñoo nekk euh, au au pouvoir alors que nag euh, daanaka fi mu toll nii. comme disait Mimi ke keroog mi ngi naan parti au pouvoir buy sànni xeex ci ay caravan maa ngi koy doog a gis ça veut dire que la défaite est consacrée merci. léegi nag man ci kaw loolu li mu ci bëggoon dolli mooy dañuy gërëm di sant euh, suñu naataango yi nga xamante ni réew mi la ñu jógee Mbaye Seck ngi nii muy coordonnateur de réew mi au niveau de Dakar Plateau mu ñëw jëmmal boppam. dëggal boppam ci biir coalition Diomaye 2024 ñu ngi koy dalal bu baax mbay dalal ak jàmm dalal bu baax ci biir coalition Diomaye 2024 bu dakaar Plateau ñu ànd liggéey coordonnateur ma jox la la parole soo paree symboliquement ñu jox ko les visuels ñu jox ko aussi euh, les spécimens solal ko la le chapeau symbole de son appartenance ci biir coalition 2024. donc comme lii dañ ko dañ ko kale woon avant que ñuy xamuñu woon sax ne ñu ngi fii donc damay permettre. ñu présenté parce que adhésion bu bees nouvelle adhésion la donc muy koo xam ne kenn dootu ko présenter Dakar Plateau ku koo xam ne la kenn dootu ko présenter au niveau Dakar Plateau parce que Dakar Plateau bëri na ñuy cëppi cëppi ci te amuñu sax parti politique mais moom ci parti politique la nekkoon muy parti réew mi doonoon coordonnateur. réew mi au niveau de Dakar Plateau muy nit ku am pas-pas dañ ko koy seedeel parce que wax si sa mbaaxu mborom yàqu ñu wàññiwul sa mbaax dara tey jii dem ba mu ñu contacter nañ dafa bëgg a adhérer munoon nag comme ni ñu koy waxee rek jaar feneen pour adhérer mais dafa ñëw au niveau de la coordination mu doon yëfu gentleman yëfu yëfu gor xam nga ak courage parce que nga jàpp nga bàyyi nga bàyyi fi nga nekkoon ñëw fekk ci ay fekk fekk si ay ndaw loolu loolu c'est c'est à saluer donc ñun mbay dañ koy dalal ak jàmm mbay sekk Dakar Plateau kenn kon kenn dootu ko présenté ci boo amee ay kàddu yu mu ci sànni mu sànni ci ci nouvelle kii merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi waa Pastef maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm accueil bu ngeen may def. waaw lu ma euh, sama parti bi ma nekk yàlla def na parti bi ñu ñoo ko sos M6 la ñu créé Idrissa Seck ñu ñoo ko créé sama kër dañu créé cellule bu njëkk plateau maa ko créé xale bu ndaw sama photo yi dama ko àndaale yoo xamante M6 2012 2007 toutes les élections de 2000 man ma plateau man la ma ma ñu ñu siégé man la ma campagne man la parti bi moom la xamoon département Dakar sax du ma nee am na coordinateur yàlla def na bu su ma demoon du dem avec du a euh, nit ki nag doo wane sa bopp mais des fois nga wax Moussa Diop bi mooy responsable des enseignants au niveau de réew mi parce que bëgguma ñëw fii pour ne kii dafa ñëw pour wane wu xàccuma poste Idrissa Seck joxuma lu ma amul maa ngi liggéey à côté bi plateau lay liggéey ci sama teraanga ci am sama lépp donc dama euh, mën a wax mooy lan naa chance ba xamante nag tey bu ñëwoon di xàccoo xale kii dafa ñëw xàccoo ay poste bàyyi naa ngeen def seen comité ba pare comité comité électoral bu réew mi mu ni nii sama saak man maay maay coordinateur bi bu deme bee 2024 bii élection bi nii 16 ans yi man maa leen bind ñu ngi fii mais tey dama préféré bàyyi lépp xool naa programme yi xool naa sama parti xool naa xool naa aussi contexte politique bi ñu nekk depuis hein depuis des mois te wax naa sama parti sama biir idée sec doo gagné doo dem doo bàyyi keneen du dem man nag dama ànd ak koo xamante ne gëm na Sénégal gëm na ne amul complot man du ma du ma yëkkale kenn sama voix dama gëm ne Sonko ak Diomaye la damay ànd ak ñoom boo jeex tàkk dama ci am góor a jël su demoon ba lundi prochain sax tey ñaan wax yàlla bu ñu gëñu woon sax Diomaye ak Sonko ma gën leen jàpp parce que man dama gëm ne dama gëm rek mooy lan Sénégal moo tax ma jël jàpp Sénégal takk ko du ma commune bëri non non te man dama bàyyi politique boobu commune bëri tey na nañu jàppale Idriss Seck mu gañee bu gañewul mu jëpp jàppale keneen benn coalition non je le ferai pas donc lu ma gëm ne sama doom yi sama rakk yi sama frère yi Sénégal dañu ne changement on a qu'à changer pour le changement changement nag ak ñu bees dama gëm Sonko ak Diomaye ñu bees lañu on a qu'à les essayer gëm naa ne sama parti xam tey doo jóg ci parti tey tey tey officiellement dama la waroon sama portable parti bi dama am lu ma ci responsabilisé yu ma fa am xamante ne tey su ma waxoon tey bàyyi naa tey su ma paree damay damay déclaré bàyyi naa te wax naa wax naa leen ba ki démb damay bàyyi du nag du nag doy na ci borom xel su ma déclaré officiellement bàyyi naa ñu bëri dinañuy jooy bakki sëñ Babacar bàyyi naa parti réew mi man ci Diomaye ak Sonko laa bokk Pastef laa bokk wax nga donc jënd naa sama ticket adhéré Ah, bu ma adhéré parti bi mu ngi fii danaa ko dugal ci sama groupe yëpp group réew mi ba xam plateau maa ko créé ci ci kanam laa dugal danaa ko dugal am naa sens réunion naa ak responsable des femmes ak fond parti ba pare ñoom ñii fekk na réunion bi du ma ñëw rek te tàggoo ma sama waa parti plateau parce que ñoom ñoo ma ngemb base plateau réew mi bu mu nekk plateau ñoo ma ngemb fii yëpp xam naa euh, euh, militants yi nee na nag na lu may waaj mais responsable bi xam nañu lu xew yaa war a dafa mooy responsable des femmes de réew mi au niveau plateau Doumbouya dafa nekk important dafay liggéey Kanté départ fekk na ma ñoom ñëpp ñoo ma leen jàpp ci politique ba tey ma ñumee def dara ci plateau tey nag wax naa leen nag c'est fini euh, réew mi ex mi la ñuy wax léegi ci mbay man juste maintenant avec Sonko et Diomaye pour jàppale ndaw yi parce que moom projet ndaw bi dafa bu ñëw Sénégal Sénégal ne donc voilà waaw message de tàggatoo bi mooy euh, di leen gërëm yéen waa seen teraanga donc rawatina yow ak sa caméraman ak seen waa direction Cheikh ñeen ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seet si bi ngeen ñi seetsi si euh, message bi may lancé niveau maanaam citoyen sénégalais yëpp laa koy borxaani ñi nga xam ne dañoo bëgg changement ñi nga xam ne dañoo doyal ci li fi nekk bëgg ay nit ñu bees ay nit ñu jub di jubal di yi pour loolu mën a am nag dañuy ñaan yàlla euh, dimanche 24 comme niñ ñu koy waxee rek ci slogan bi bu ñu xëddee jarul ñuy dem di sieste ak di nelawaat di kii dañ dem rang ci bureau de vote yi nga xam ne balaa midi suñu victoire leer nàññ te li ma li ma ko waxee woon ci suñu meeting ba rek bu ñu voté ba pare ñenn ñi nga xam ne may may nañ leen am nañ temps bi ñu taxaw sécuriser les votes. nañ taxaw foofu parce que dañoo baaxoo Dakar Plateau bu élection amee gars yi jël ay moyens dem recruter ay nervi yi ay gros bras di intimider nit yi loolu moom bu yaboo ñoom ñu xam ko deel deel teel teel loolu du fi am comme ni mu ko waxee rek bu ñu fi indee gros ay gros bras fekk ay grosses nañ xeex ak ñoom ba ba suñu victoire jour bu ñu dogoo rek mën ko jubiler di di di ñaaxaat tamit euh, comme ni ñu koy wax rek wax du doy donc ñi nga xam ne. Euh, coalition Diomaye la ñuy voté bu ñuy voté ji ñu bañ a bàyyi lenn loo xam ne day identifier que ne ci coalition bi la ñu bokk wala ci wala coalition bi la ñu bëgg a muy bracelet muy pince muy écharpe muy t-shirt lépp jour vote ba ñu ñaan leen rek ñu teg ko foofu parce que loolu de mën nañ ci annuler seen vote mën nañ ci mën mën nañu porter préjudice ñu bàyyi ci xel bu baax di ñaax tamit tamit ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Dakar Plateau day voté ci région yi ñu ñu ñu ba nga xam ne samedi euh, nu mu tuddati vendredi ci guddi ñu jëm ñu def leen maximum xam ne ñoom dañoo am lu ñu bëgg kon loo bëggee dara day tax mu jaral la dara ñu farlu dem seeni village wala seen dëkk ñu dem voté ji foofu incha allah le 24 ñu fal fi nit ñu bees tax président bu bees tax incha allah rabi jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay waaw macha allah école Rebeuss voilà bureau numéro 8. symboliquement ñu ngi lay remettre voilà. naka solo ko mbaxale bi nag day simmi bii nag sol suñu bos. léegi bii nga bokk bii nga sol.